depuis foofu la ñu démarré journée tay bi mu nekkoon journée bu riche euh, tàmbalee ko Wakam daje ak coalition nationale pour une pêche durable waaye bi ñu dajeek pêcheur Wakam mel na ni daje nañ ak waa Yoff mel na ni daje nañ ak waa Ngor mel na ni daje nañ ak waa Cambérène mel na ni daje nañ ak waa Hann mel na ni daje nañ ak waa Bargny mel na ni daje nañ ak waa Jiwolo mel na ni daje nañ ak waa Kayar mel nañ ni daje nañu ak euh, euh, euh, dëkk yëpp yi nga xamante ni dañ fay def napp ndax li nga xamante ni moom lañ doon charte signe bi ñu charte bi ñu doon signé fële tey jii ci wakaam mooy nan la ñuy def ba bés bu ñu wóoloo ci vingt quatre mars deux mille vingt quatre nan la ñuy soppee li nga xamante ni moom mooy wàllu napp ba ñu fa jógee nag daal di dugg def ay ziar ci kër maam Seydina Limaamu dal di fay daal di jógee Yoof Dari di ñew fi nga xamanteni moy ci Seydina Isa di ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu tas seen leer ak seen barké ci réew mi yépp li nak nek lo xamanteni lu am solo la ndax réew ngëm muy ambition immatérielle la koy tuddé bi nga xamanteni président ziar tay euh seen dund yépp dañ ko jox doom adama yi donn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci zahir ak ci batin di sam li nga xamanteni mom moy ndonom te yonent bi salaatu wasallam donom li nga xamanteni dinañ ko sam ci kaw suuf mo yermande ñel minde fi wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin Yirman de nak mom lañ fekk tay ci kër yi nga xamanteni kër gi nga xamanteni ci lañ dug muy kër Seydina limamu waye yermande joju it mom lañu bëgg kep ko xamanteni bëgg nga jité rewum senegal ñoo ngi ñaan suñu borom mu def ci sa xol ak ci sa xel ak ci sa ru yermande ju mat gogou ndax senegal limu soxla ñu jikko yu rafet Sénégal li mu soxla fi mu toll mooy njub Sénégal li mu soxla fi mu toll mooy yërmande te loolu boo ñëwee ci kër gii nga xamante ni fi lañ dugg tey loolu mooy dars yi nga xamante ni moom nga fiy jël si mooy leçon nga xamante ni moom nga fiy jël si kon ñoo ngi sant bu baax di sant sénégalais yëpp di leen jox dig daje ëllëg fële nga xamante ni moom mooy Rufisque incha allah ñu def far nar faa def jotaay yu am am solo yu yaatu di sant bu baax jërë ngeen jëf.